président iranien bi da doon voyager tey li nga xamante ne mooy hélico bi mu nekkoon ak ministère des affaires étrangères ak équipage bi mu àndaloon jékki-jékki ñu atterrir dans le secteur bu doy waar ci ay montagne ñu ne nag li tax mbir mi am mooy jaww ji système bi climat bi moo doxutoon léegi nag gars yi gis nañ li nga xamante ni mooy hélico bi mais problème bi mooy la ana président bi kenn gisu ko ministre des affaires étrangères bi kenn gisu ko waaye rek du bett kenn ci li commencé am parce que ñu bëri ñu naan président Iran bi dee na ñu bëri ñu ngi koy wax ak ñi mu àndaloon mais nag du bett kenn ngeen gis service américain yi génn naan sëy yaa waxoon na ko waxoon nañ affaire bi baaxut jaw ji baaxut du bett kenn nag ñu ne espace bi ak jaww ji baaxut am na nag ñoo xamante ne enragé na leen. kontaan nañ ci waaye ba léegi kenn xamagut ndax lu ñu def la wala ndax defuñ ko ndax dañ koo rey wala ndax reyuñ ko wala ndax lu ñu créé la waaye lu ñu leen mënti xamal mooy adduna bi toll na foo xamante ne tey ci jamono ji àgg na foo xamante ne tey nit ki bu la neexee avec le phénomène de harbe mën ngaa def tremblement de terre avec le phénomène nuagé mun ngaa jékki-jékki fu taw amul mu taw gis ngeen temps yi lu xew ca Qatar avec le phénomène. bi nga xamante ne am na ci côté système climat bi mën ngaa jëkki jékki créer ay inondation tout est possible waxuma nag affaire nuage loolu yëpp euh, technologie dem na bi àgg foofu fu leen neex mën naa taw fu leen neex mën naa sedd ndax lu ñu def la wala ndax defuñ ko point d'interrogation ak li nga xamante ne li technologie ira bi avancé yëpp comment ça fait ñoom ñu dem président bi war a voyager te ñoom xamuñ ne tey ça sera nuagé ou pas point d' interrogation léegi comment ça fait nag loolu yëpp am dara amu ci mu am ay nuage ba jékki-jékki ñu ne hélico bi perte na contrôle ba radar yi nga xamante ne ñoom ñoo ko waroon a surveiller pour ñu mën a gis hélico bi ñu perte radar. hélico bi kenn mënatu ko repérer lépp amatul contrôle amatul dara kenn xamatul fan la nekk lépp li nga xamante ne ay radar la coupé nañ ko coupé signal coupé lépp loolu la service de renseignement Iran def comme déclaration lan moo am lan moo xew lan moo ci am doy na war trop ci commentaire yi nag bëgg naa ngeen wax ma seen xalaat lu ñu def la wala lu ñu defut wala tombe la wala du tombe dinañ ñëw ci yeneen live gën leen expliquer leneen waaye daal xel tey na trop ci mbir mii nii ci li nga xamante ne disparition président Iran bi dee na wala deewul xam naa ne daal ci dee la gën a jege parce que jamono ji gis nañ hélico bi mais gisuñ ministre des affaires mu àndaloon gisuñ ko te ñëpp comprendre ngeen li amoon fan yële passé Iran bombardé woon na li nga xamante ne mooy Israël ay missile ak ay drone kon nag léegi ndax fayu la wala du fayu ak lan moo ci xew point d'interrogation allahu la dina ñëwaat ay leeral yu bëri Israël nag ak États-Unis Israël waxoon na dina tontu dina répondre ba léegi nag kenn gisagul fu Ibrahima répondre ndax ni réponse la wala du réponse point d'interrogation lan moo xew hasard c'est pas hasard point d'interrogation abonnel aimel partagel laayigel